juróomeelu nataal adama ak awa dañu amoon ñaari doom kaayin ak abel kaayin dafa doon fiire abel benn bés mu rey ko yàlla mbugal kaayin ci jëf jooju yàlla bëggul kuy bàkkaar ndax bàkkaar ñu tàggale woon ak moom xaritoo bi yàlla namoon suñu diggante ak moom mënatul a am